maam Lawbe sama xarit bi loolu naa la gëj naa laa gis. maanaam. moo doon coono. sant yàlla sant Tuubaa rek. Ah waaw yàlla sant yàgg maam Lawbe. nëmm naa leen. Ah. ngeen baaxkat yooyu. kon loolu kañ lañ gëj a gisee. yàgg na xanaa ca fépp jiwuleer loo doon. waaye alal la salaam lañ gëj a gisee ba mu gën a. ci Dakar géej buy géej ana yooyu. maa ngi ci sa sapp ci lay ba jëkk. maa ngi nii. naka géej waay. ñooñu nag jàmm ak salaam salaam salaamatan. happiness kafre. barke yoon ci am na daa war a ñëw wasaare di def émission émission lawbe bu at bu bu toj. des fois nga def dëxit des fois nga def kii. lëmbalu lawbe yeeg yi mel ni jàmm. yaa ko tee neex. ah loolu kay boo di too lii bu lay pare may pare ah, na ma koor gi ñu sant yàlla Maodo muy woore xanaa nag sellal nag du julli ak a jàpp defuñu mbaxal defuñu ataaya ràcc bërëb defuñu ko woor normal woor dañuy aj la bël wala dañ koy wàcc ak lépp ak jaar fii du wàccee foofu noonu nga bëgg kañ lañ koy ah, après korité ba suba ga ñu def moom nañ tëgg a dëgg mais maam nag kontaan nañ ci yow na fa géej waay noo dundee ci yow. kontaan na xëy liggéey na baax. sell set. defoo leen dalay déréglé. barke bi. yàlla seen teraanga yàgg. te yàlla nañ dégg fu kawe. ci doole Serigne Fall. tey wasaare dañ fay ñëwoon seet si ci jaww. indil ko teraanga boo xamante ni teraanga bu bari la. comme lu baax dañ koy wane ñu ñu ko pour am na yëpp gis ko parce que bari na ñu mel ni jaww ci réew mi ñu war leen mën a teral te teraanga boobu yeggu ci ñoom. wasaare juumul. moo fekk jaw dugg ci moom mm. wasaare juumul jaw mu baax ku am ku am faale te xamal li ma gën a neex ci moom sama koor gi day joxe lekk te fii kenn xiiful kenn marul waaye safar fa la koy def da ngay lekk ba su yëkkati ñaar téeméer ne la naan ataaya barke Seexu Xadim mooy jaw faraan mbeer yaatar jaw ma jaw xool fara jaw booli mooy bakkar bi ci waalo bàyyi faayaas ni ma doon jaw li laax ba ginnaaw suba loo dama far maa ngi loo dama far maa ngi ëpp saa ci waaye ku far yaa moom maa ko moom waaye yéen ñu baax ngeen ñu wasaare yi ñu baax ngeen ñu am safoo ngeen ñu am faalo ngeen te seen liggéey liggéey bi ngeen di sellal rek laa leen kalaame ngeen yokk ba eh! <laughs> bismillaahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi wax doowu mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare di leen màggal ci weeru tedd yi ñu nekk muy weeru koor ñi ngi ñaan suñu boroom nangul ñu suñu koor nangul leen yéen ñi ñuy seetaan te yàlla may ñu ci ay xéewal defal ñu ci ay taraanga lépp lu ñu ci woor yàlla na ko suñu boroom def ay xéewal sotti ko ci réew mi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yi tey bu ngeen gisee jataay bi ni mu demee ngeen xam ne nag lu yëngu lu ko yëngal lu ne moo ko ëpp doole ndax tey dafa am kenn ci ñun koo xam ne li ma ne askan boo ci teralee teral nga ñépp waaye aw askan ku ci terle ñépp ànd nañ ci jooju teraanga tey nag site internet bu mag bii di waa wasaare ñoo def jëf ju rëy def teraanga ju rëy def loo xam ne lu am solo la ngir dañoo yëkkati ay teraanga yu rëy ne am na kenn koo xam ne kat li mu liggéey ci làmb bari na ba mu ci nekkee booba léegi nekk gunu ci booba juddoo guñu ñu judd fekk ko ci mu ciy def lu rafet di ci bay waaram muy jaw ñu gën koo xam ci jaw mu Malick Gakou jaw bu Balla gay jaw mu Géejawaay jaw mu senegaal ndax noonu la wuyoo ci réew mi ndax fullaam ak faydaam ak xolam bu rafet tey waa wasaare ñoo yëkkati taraanga yi ngeen di seen mbokk yi indi ko ngir sargal ko ngir tatagal ko fi mu toll ci réew mi ñu ñëw indil ko suukaru koor danne woon sax dañuy ñëw rek jox ko ko dem waaye nag taraanga des koy weer te lu baax boo koy def fexeel ba ñëpp gis ko ngir ñi ko mënta defuñu ko ñu roy ci yow looloo waral ñu ñëw tey géejawaay fekk si suñu papa Diaw Aline Diaw ñu nag kontaan lool ndax bi ñëwee fekk nañ fi suñu papa père Ndiaye wax naa ko sànq bi ñuy waxtaan nee naa moom boo wër làmb ba ñëw ci moom booy boo nga toog kon papa ñu lay nuyu di la ziar ah bi nag du gudd ñu ñëw kër jaw waaw wasaare indil ko taraange yi ñu fekk la fi nga teew ñu jox la nga ubbi bu ko defee ñu jox jaw ñu dugg ci waxtaan waa jërëjëf maa auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li eh, ngi nuyu boo bokk na yi nga xam ne ñoo fi daje ñëpp di jël nuyoo bi rek di ko teg ci loxo wasaare mu joxal ma ne ko yéen ñëpp <coughs> ngeen baal ma nag dama xaw soj <coughs> yaa ngi dégg. Mm-hmm. ah tey jii nag ah waaw wasaare yi waaw ma ku mel ni Bachirou. Mm-hmm. mi nga xam ne moo ko jiitee. Mm-hmm. ak ñoom Ousin xale yi fa nekk ak ñoom Abdou Khadir rek. xale yooyu yëpp tey jii ak ànd ak yéen tey. war a defal jaww teraanga. ne ma dañu bëggoon nga fekke ko. waaw ah, bi ma ko waxee ma rafetlu ko lool sawar ci lool nag it. parce que jaww moom. wax dëgg yàlla képp koo xam ne kii yaa ngi koy teral lu jëm ci làmb waxuma sax làmb rek. waaw ku ko dégg war nga cee mën a jow tey xam naa ne bu ko yëgle woon mm-hmm. tey fii kenn du kenn du fi xaj mm-hmm. parce que ni mu seq ak doomu yi la ci yaru gi mm-hmm. ci baax gi ci fidel gi ci wane ragal piété gi nga xam ne ragalul piété fi mu nekk wax nga ko léegi jaw Malick Gathie xam ku ne xam na ko jaw Balla Gaye ku xam na ko jaw Asin Ndiaye ku ne xam na ko <coughs> ngeen baal ma wax dama kon dama guddal kon nag bis bisam la ñu ñëw wuy si ko jërëjëf jërëjëf ñu am kontaan nag ci site internet yi fi teew yëpp waa wasaare bi ñu wootee gaa yu bari ñëw nañu waa Leewtoo ñëw nañu waa Lit TV ñëw nañu waa Kewel ñëw nañu waa Buur Gewel TV ñëw nañu site internet yëpp daanaka ñëw nañ ah ku ma fàtte rek ngeen baax na sama gaa yi ah Père Diaw taraanga yi nga xam ne waa wasaare ñoo ko def indi ko ngir teral la xam na ne am nga taraanga ci nga juddu xam nañ ne yaa ngi tedd waaye sànq bi ñuy waxtaan rek li ci ëpp solo mooy yëg gi la fait que ñu reconnaître ne Père dañ ko war a teral rek buñ indi woon keesu suukar sax doy na sëkk ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk yi ak lan ngay wax ci li waa wasaare dem asbillahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala xuwata illa billahi aliy alasim bi ma sante yàlla julli ci yonent bi sam suma ñaari waajur maa ngi gërëm Maodo hmm. alaaji Malick suma sëriñ ndeysaan maa ngi gërëm sëriñ Babacar Si hmm. maa ngi gërëm alaaji Abdou hmm. maa ngi gërëm Tiwaawan yëpp di gërëm waa Touba di gërëm waa Layeen di gërëm waa Ñeseen di gërëm waa Canaba di gërëm sax église bi di gërëm réew mi yëpp di wax rek ni tey mbégte gi ma am mbégte gu rëy la maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp limal nga ma léegi sud yi fi ñëw lii de ku mu doyul dara du doy maa ngi gërëm waalo gi ma joge di gërëm géejawaay gi nga xam ne ñoo ma teral ma def fi at yu bare may wax rek ni am réew boo ci nekkee mhm. da góor góorlu di wax lu baax te di def lu baax teraanga ji ñu ma defal de. Mhm. en 1973 à nos jours. Mhm. bu dul sama rakk ji di Aziz Ndiaye. Mhm. di El Hadj Malick Gakou. teraanga ji tey yéen ko ñetteel ñaar ñooñu dey. ñoo ma teral ci làmb. ndeysaan. Aziz teral na ma. ba yóbbu ma mag. Malick Gakou di ma teral. baaj ma ci hélicoptère ma tiim amateur yëpp. kon tey beneen teraanga bi. wasaare làmb moo ko defal. dëgg googu nag. maa ngi gërëm njiit gi ñu koy wax baabu. ndax bi ma sama jarbaat woowee ni ma dama bëgg waxtaan yow ci wàllu làmb. dama ko nangul rek ndax géejawaay léegi maa fi sës ne lu fa ñuul moo di ñàkk. ndax mhm. Balla Gaye numéro un yàlla na ko yàlla jéggal joge na fi. yàlla na yàlla jéggal Daouda Fall jóge na fi. na yàlla jéggal Mor Fadam jóge na fi. Mhm. kon xale boobu doon topp ñoom Balla Gaye mhm. ak ñoom daaw Fall. Mhm. jaw moomu tey moo toog fii. Mhm. yàlla dogal mu nekk ci biir Guédiawaye di jàppale xale yi. Mhm. ci wàllu làmb kon bu ngeen ñëwee tey jël teraanga ji. di ma ko teral ci weeru koor wi maa ngi ñaan kii ma ko jox. yàlla na ko yàlla soppi lépp lu mu bëgg. ba nga laaj ma leneen. amiin jërëjëf mbokku internet yi xam naa dañuy dugg ci waxtaan wi rek gars yi nag ku ci am question rek nga def ma signe ndax. Euh, teraanga ji ngeen ma defal ma it maa ngi leen ciy sant euh, ñu daje fi ngeen jox ma micro yi du sama xam-xam du sama man-man seen baax la rek jërë ngeen jëf euh, Père Diaw euh, ku wax per Diaw wax làmb waaye bala ñuy dugg ci loolu sax jataay bi per Birahim Ndiaye mi ngi fi sa diggante ak Père Birahim ak teraanga yi mu fekke waaw maanaam ci pré ci bi may présenté wu xam nga Birahim Ndiaye man mm-hmm. ñëw bi ñëw fii suma kër rek doyoon na mu ñu teral ma. moom dong bu ñëwoon rek. doy na ndax dama yàgg wax ni bu ma doon mbër Birahim moo may jàngal bëre. su ma doon wuñ ménager Pape Diagne Seras mooy doon sama ménager wala Abdoulaye Ndiaye maa ngi gërëm paysan baabu di gërëm ménager yëpp. ndax sii di képp ku ciy wax. na góor góorgóorlu ba di wax lu baax ndax loo xam ne ëllëg say sët sax dinañu ko seetaan. booy wax na nga wax lu baax ndax réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Birahim Ndiaye mënuma ko fay. man ku ko bëgg laa ndax bëggiwuma ko dul ngorom ak dëggoom. mooy nitu làmb koo xam ne bu làmb amee. ba Birahim Ndiaye nii nii la combat bi di demee ci kàtt kàttanu yàlla. sunu borom mën na ko suturaal mu demee noonu. bi muy takk ngemb. kenn yabu ko bi mu tekkee ngemb kenn yabu ko kon gàcce ngaalaama Père Birahim. may gërëm suma jarbaat bi Moussa Sarr. Moussa kii suma chauffeur la. Mhm. ndax man transport total la. Mhm. yàlla dogal tey mu ñëwoon doon ma seet si fa fekk fi mbir yi. Mhm. may gërëm waa Géejawaay yëpp. di wax ni teraanga ji tey Géejawaay yëpp lañ ko defal. teraanga ji Aziz lañ ko defal. teraanga ji Baye Ndiaye ngeen ko defal. teraanga ji yéen ko defal Masata. teraanga ji defal ngeen ko ay Aïdara. teraanga ji defal ngeen ko doomu Géejawaay yëpp. teraanga ji defal ngeen ko Ahmed Aïdara teraanga ji defal ngeen ko Baare Gueye defal ngeen ko sama soxna defal ngeen ko samay doom defal ngeen ko samay bokk ndax waalo laa jóge di sëtu yoro jow ca waalo man lii dama koo doon lii ngeen ma defal nii dama koo doon kon bu ngeen ma teralee wàcc ngeen bala laaj ma leneen jërëjëf euh, ku wax jaw wax làmb yàggut dara ñu jóge ci combat bu mag diggante ama seen ak Lac de Guiers numéro 2 jóge nañ ca làmb ja coow la bari na ñu bari jàppoon ne sax noon la war a mën a deme en tant que nga dëkk géejawaay yàgg ci làmb combat boobu lan moo ciy sa jàngat ama seen la dëgër maa ngi ñaan yàlla yàlla na nu yàlla dimbali ba kàddu yi may révélé yëpp yàlla jàpp ci ba mu jub amiin ndax wax naa waxati kon bu may waxaat yàlla na ci yàlla jàpp maa ngi wax rek ni mm. làmb lu ne xew na ci mm. naa keroog ni maa ngi jéggalu lu roi des arènes mm. di jéggulu Mbaye Gueye le tigre de Fass ndax arène Sénégal Mbaye Gueye tax amatul ndax Aline Fall ci wàllu cummikaay waaw Aline Fall dafa ñëw samp cummikaayam Mbaye Gueye ñëw fi Aline Fall def cummikaayam mu ni fi lay def cummikaayam looloo yàq làmb ja amateur yi jog ñi jël siège ñi jël porte te rew làmb continue Birane Ndiaye mii toog waxoon naa ko te gisuma ko woon kon bu ma ko gisee mhm. dama koy seerewaat ni màngalu roi des arènes Birahim Ndiaye bëri nañu ñoom ñaar bëri bu metti Birahim njaay di dajale màng bi màng demee ba xam ni am na fu Birahim Ndiaye toll dafa yóotu ca faar ga maa ngi jéggalu màng ak i bokkam ni ko nit terewul làmb continuer da dama ni loolu daal laa la wax dama ni am na daal fu mu téye ci yaram bi ba tax arbitre bi àttee terewul làmb continuer dëgg la ak ñi ma doon wax bàyyi làmb ni ngeen ma ñaanal ma continuer ci làmb ndeysaan làmb de ci laa xamee woon sama rakk ji muy Abdou Aziz Ndiaye mu téye ma ngir làmb téye ma ngir géejawaay téye ma ngir ma nekk magam hmm. maa ngi moom ci làmb ji ba mu yóbbu ma ci yonent bi di ma tere la ne tey jii waa Wassare làmb hmm. baabu nekk ci États-Unis joxe ndigal ni jëlee ndiin yére ba ci dàll ba ci ceeb ba ci diwlin hmm. diwlin jii nag maa ngi jéggul yéen si internet bi ndax kii kat su ma ko yëkkatiwul. yaa ngi publicité de. wallaay passé naa publicité man kay su ma mënoon ñu takkal ma diwin ji <laughs> may xëy daw si suba ba ngoon bu ngoonee ma tëdd bu ma xëyee daw noonu laay def ndax ku xam Zador. Hmm. ku tudd borom Zador sa xel nekk ci jaww. Hmm. waaye utiliser leen Zador. waaye Zador doomu réew mee ko moom. lu ma am yóbbu na ko Tivaouane lu ma am yóbbu na ko Touba. lu ma am yóbbu na ko Guédiawaye lu ma ko ci Niassène kon doomu Guédiawaye bii. Mm. nga xam ne moo créé Jador. Mm. yéen borom site internet yi sax. Mm-hmm. maa ngi borom Jador na leen sponsorisé. loolu nag danaa ci dox. waaw waaw waaw. sponsor yi bu yem rek ci télévision yi. danaa ànd ak moom bépp site bu ñëwoon fii ci suma kër. waaw Aziz dañ la sponsorisé si kàttanu yàlla. kon doo fay commercial bi. barke El Hadj Malick dañ leen sponsorisé ndax mu nga bëgg rek Aziz bëgg na ko. waaye dinañ ji na ko réew mi utilisé. Mm-hmm. doomu réew mi moo ko moom te lu moom bokk na ko réew mi surtout waa Guédiawaye ba nga laaj ma leneen. sa diggante ak Balla Gaye waaw mu ne fan ngeen doore yéen ñaar. waaw xam nga Balla Gaye damay wax toujours ni dootuma wax suivre xaalis bi. Mm-hmm. damay wax ni maa ko yor ci ñeenti junni. ba ci cent vingt millions. Mm-hmm. te mosuma ne ko may ma 1000 francs pour muy leer. Hmm? barke El Hadj Malick man surtout yoro jaw laa du ma ñaan su borom teral na ma métier mu oto rek laa yoroon. Hmm. góorgóorlu naa ci ba transporteur laa tey sama njaboot màgg nañu di ma dimbali réew mi weg nañ ma hmm. du ma ñaan kenn benn nit may dimbali ci réew mi muy Abdou Aziz Ndiaye ak El Hadj Malick ñi ci des ñu ngi may dimbali waaye ndimbal loolu laa mën a fésal ndax man ku muy dimbali yaa may fekk fi ma toog te ban sëtu Yoro Jaw la. Eh, rek ñu jox euh, Basirou nga xam ne moom moo jiite wasaare ñi ñëw fii euh, ñu def taraanga ju rëy ji ni ngeen ko gisee am na ay yére am ay dàll am mbaxana yàlla nañ ko ràppal nag ci barke yonent bi ni ngeen ko gisee soxna si it jël nañ ko ay tisi moom tam am na solo waaw kay. ma ngoog. dàll yii mosuma ko sol. bëggoon naa nag wax ma ude bi ko defar. ndeysaan kon nag. Ah? nanu bàyyi dàllu chinois yi ñuy sol. mooy metti tànku sénégalais yëpp. nañu def consommé sénégalais korité gi ak tabaski. ak màggalu Touba ak gàmmu Tiwaawan. ak laayeen yi ñeseen yi. Mhm. maa ñaan ci dooley Maodo ndax Maodo maamu ñëpp. Mhm. Serigne Touba mooy maamu ñëpp. naa Limaamu mooy maamu ñëpp ñeseen yi ñooy maamu ñëpp nañu def consommer sénégalais ku ma seen rek xamal ne léegi dàll yi rek laay sol dàll yi maam boo fi jógee MK bi danaa leen def ci saaku oto bu jëm mbëbë sama dugal ko ci amoon na surprise ñu defaral la photo sëñ Babacar bu rafet mais mi ngi ci yoon bi di ñëw. waa caméra yi tourné leen ko ci sama sëriñ bii nga xam ne bu ma jaaxlee moom laay woo si c'est possible sëriñ Babacar a nii. maa ngi la koy ñaan rek mhm. ngir jëmmi Maodo Serigne Babacar a ngi nii rakk ma ngi nii ñun ñii la yaakaar. Mhm. sama tailleur bi ma décidé woon ñawal nga baal ma rek xam ne programme woon naa ñëw pour nga ñawal ma ci tabaski bi mais c'est impossible euh, ci korite gi lii laay sol ci korite gi te nag tailleur bi dinaa ko seeti mhm. yóbbu ñoom Aziz ak ñoom Baye pour mu ñawal leen bëggoon naa nag xam tur wi. waaye nag xam naa di ngeen ma ko après. Ouzin moo ko Ouzin bu wasaare moo ko ñëw. Ah, waaw. waa kii sama mbokkum waalo waalo la. waaye mooy borom métier yu bari kon maa ngi lay ñaanal yokku ba yëkku ku am dama fa ñëw. baax nañ waaw xam xam ni waa Tivaouane la. bu xonq bay nekk devant. Mhm. gis ngeen nii. làmb daal décidé woon naa génn lii ma fi wax lu mu gudd gudd na ngeen ko teg di ko dagg di ko teg. ndax dara ñaawu ci. parfum baa ngi ni ci biir mbuus. Euh, ani ñu. dama koy génne. mbooloom ku ma seetaan ci bëgg ci maa ngi ñaan ci daraja yonent bi yàlla na la yàlla suturaal man ku ma xool xam ni ndox mi may sangoo sax dama ciy def parfum ndax sëtu yoro jaw la kon macha allah parfum bii daal dañ ko tuddee parfum bu jaw da laaj ma leneen ay waaw soxna yi waaw soxna yi kenn woon naa ko ah sekk moo nekk nii à waaw Adama Fall moo nekk a gauche. yaa leen choisiral noonu. maa leen choisiral kon nag lii daal en réalité ñu ci des nañu muñ am na ñeneen ñuy ñëw ndax aw ma njaar rek am na Aji Fall ak Mami Fall ah. ñoom ñëpp sëb Seex Ibra lañu ba ngeen laaj ma leneen. macha allah ay <laughs> jë sama waaj waaw asalaamaaleykum mm-hmm. ñu ngi koy nuyu moom suñu papa Père Diaw mm-hmm. di nuyu suñu papa Père Birahim Ndiaye di leen nuyu yéen aussi yi nga xam ne suñu confrère ngeen mm-hmm. euh, damay lim parce que euh, li ngeen def nii du ma ne ñun ngeen ko defal mais seen bopp ngeen ko defal muy li ko dalee ci Bour Gueweul TV di waa Leewtoo TV di waa Lutte TV di waa euh, Kewel Info ñoom ñëpp vraiment Euh, dañoo am mbégte ba mënuñu sax fësal suñu mbégte ci yéen ndax lii mooy wone ne rek ñun li ñuy yëngu yëpp ñun ñoo ko bokk te benn la te dara ñaaw si kon yal na yàlla yàggal taxawaay bi yàggal ànd bi ba ñu ànd ci yeneen i yeneen i teraanga per Diaw nag li ñu ko defal nii euh, dama naan du dara geste la rek parce que wax na ko ci biir waxam teraanga bu ne jot na ko mais dañoo bëgg a wone ab yoon rek pour ñu xam ne ñi fi nekk di yëngu ci làmb nekk ay mag Euh, di ñu teete ba ñun ay xale ñu sawar a dugg ci làmb sawar a investir ci làmb ñooñu fépp fu ñu gessoo gis leen suñu ginnaaw rek war nañ leen a teral muy ci kàddu muy ci jëf ba ci yàlla nañ fi yàgg te wër sax teraanga la boo xam ne war nay tukkee ci ñun di dem ci ñoom ndax euh, saa yu ñu leen gisee suñu kanam wala saa yu ñu leen gisee ñu yëngu ci làmb ñun dañuy gën a ñemel day tax ñun ñu gën a am fit ci li ñu nekk am na nag lu ñu naqari ci làmb li ñu naqari lenn la mooy ñun ñi ñëpp ci làmb la ñuy yëngu eh, ni mbër yi yaakaare teral seeni jur ci làmb ñun noonu lañ ko yaakaare teral suñu wayjur ci lii ñu yëngu mm-hmm. moom mooy suñu teraanga tey képp ku ñuy dimbale ci lañ la bëgg a dimbale mm-hmm. mais jamono ji ñu toll nii manque de considération am na ci ñun muy képp ku yor site internet ñu lay xoole bët yoo xam ne jàpp nañu ne noonu la demee alors que demewut noonu ñi fi nekk ñëpp ay entrepreneur lañ dañuy investir ci domaine bi dugal ci ay millions di entreprendre te dara sotteegu ci recruter ay xale yoo xamante ni tey bu leen bàyyi woon ci mbedd mi la ñuy ne duñu am liggéey mm-hmm. loolu rôlu état la mais ñun ñu ngi ciy góorgóorlu ji def suñu kéemtalaay kàttan mm-hmm. site yi fi nekk ku ci nekk lu mu gàtt gàtt gàtt am nga cinq employés yoo xam ne chaque fin du mois nga fay leen am nga sa fonds de roulement boo xam ne chaque fin du mois nga fay courant mm-hmm. fay location fay connexion fay yenn yu sew sewaan yi ay transport ak yooyu nga xam ne weer wu dee lu mu gàtt gàtt da ngay génne ay millions muy dem te liy dugg mboolem ñi fi nekk yor site internet xam nañu liy dugg matul sax cinq cent mille par mois kon ñun dañuy investir di dugal suñu alal di ñaan yàlla ëllëg mu mën a màgg ba mel ni yeneen sites yi wala yeneen télévision yi ba mën di ci jariñ ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais nag fi mu toll nii ñëpp dañoo jàpp ne ñu ngi ciy am àdduna la ca biiram képp kuy amati sa événement des fois da nga ciy beddi ay nit. te loo xam ne loolu mooy seen cër ñun ci làmb la ñuy yëngu bu làmb bi tëjoon tey dañuy tëj suñu entreprise dem xooli leneen làmb dañu koy dundal mais dundewuñu ko képp ku ci nekk nekk mbër mu ndaw siti yi amu xeebuñu kenn amuñu kenn ku ñuy laaj transport du ma sàmm duma demba dañuy dagg seen i yitte dem seeti la waxtaan ak yow dugal di ñaan yàlla nag loolu law ba ëllëg ñu mën cee jariñ ay nit noonu ñu koy defee ci mbër yu ndaw yi di leen feeñal noonu la ñu bëgg aussi ñi nga xam ne nii dañoo war a jox cër muy ay mbër yu mag nekk ay kilifa ci làmb làmb def leen li ñu doon ñoo ñu aussi ñu ngi xaar ci ñoom en retour ñu delloo ñu cër bi nga xam ne moom la ñu am ci làmb parce que ñun làmb la ñuy liggéeyal donte suñu bopp la ñuy la ñu ngi ciy wër suñu bopp mais li ñuy def yëpp làmb lañ koy defal pour l'instant parce que gagné guñu ci mais considération bi ñu bëgg mooy ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci làmb ñi nga xam ne ay mbër yu mag lañ ci làmb ñi nga xam ne ay événement làmb la ñuy def saa yu ñu dematee ba koy def nañ xool ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci làmb te làmb rek mooy seen activité ñu bàyyi xel ñooñu. loolu benn message la woon rek boo xam ne dama ko doon lancer sama mbokk euh, ñi yor site internet yëpp. pour ñu mën ñu cee dimbale parce que yéen suñuy papa ngeen mm-hmm. bu suñu bët xonqee dañuy daw fii ñëw wax leen ko mm-hmm. lii moo ñu naqare lii la ñuy jooy ngeen jàppale ñu ci mais it li waral lii mooy jëf ji nga xam ne nii yaa ngi koy def ci làmb te woo sa tànk loolu nag ñu mën ko ak ñu ñàkk koo mën saa su ne saa suñu gëstoo gis la nga ci yëngu rek yemul fii lii tàmbali la mm-hmm. dañ ko doon def ci per Mbaye mi nga wax père Aline Seye def nañ fay rendre hommage taal suñuy caméra dem ci seen i mbokk dégtal leen suñuy micro ñenn ñi seen i anniversaire wala seen biñ leen di ñaanal dem nañu fa waaye dañoo ne li gën a rafet mooy nit ki bi muy dund nga am benn gest boo def pour ñu xam ne kii kat am nga reconnaissance envers moom loolu moo waral ñu démarré ko nii di ñaan nag yeneen teraanga yi nga xamante ne nii ñeneen ñi ñu ngi ñaan andi ko fi yàlla na la fi fekk ñoom aussi suñu borom kàttana leen may leen alal yu baree baree bari ba lépp lu ñu fi yéene andi ñu andi ko fi ñuy sant suñu papa ji Père Birahim Ndiaye parce que bu ñu xuusee rek ba sawara war a ci li ñu nekk daf fekk mu nekk suñu ginnaaw ndax mag la moo xamante ne nii tey bu ñu ko woolu woon suñu wet mu lànk rek boobaa danañ xoolaat suñu taxawaay xoolaat suñu doxalin mais ba ñu ko woowee mu sawar a ñëw ci ñun sawar di ànd ak ñun ba pare di ñu orienté boobu la ñu xam ne li ñu nekk nii bu buñ ci góor góorloo yàlla mën nañoo dimbale. noonu lañ koy sàkkoo ci yow it di ko sàkkoo ci bépp kilifa boo xam ne nii yaa ngi ñuy bàyyi xel wala yaa ngi bàyyi xel mbooleem site yi fi nekk ci bañ a guddal rek loolu moom moo waraloon tànk yi ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan koor gi ñu woor ko ci jàmm ak salaam génn ci ak alhamdulilahi rabbil alamin ba ñëpp delluwaat ci yitte lépp lu waaye wut rek yàlla na ko suñu borom yombalal ñuy wuñu kenn ñi bëggoon a ñëw te ñëwuñu ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal waaye aussi euh, Ousin Diop moom aussi dinaa ko defal mention spéciale euh, parce que bu nga xoolee bu yàggul mm-hmm. Père Birahim defal nañ ko lu mel noonu te jiili mi moom moo doon ñaw yére yi nga xamante ni moom moo ñëwoon ci Père Birahim Ousin mii aussi moo ñaw yére yi nga xam ne moo ñëw ci yow parce que am nañ yeneen métier yoo xamante ni ñu ngi ciy yëngu boole ko ak euh, site internet bi donc moom aussi ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci jàppandal bi euh, loolu daal moo nekkoon kàddu yi kilifa gi nga xam ne yëkkati woon na ko jaarale ko ci ñun suñu jëmm yu xeebu yi pour ñu fexe jottali ko lépp lu ci dëng nag ci ñun la ñu leen di lu baax di jéggaluwaat baax encore une fois jërë ngeen jëf. dégg nga li njiit wax yan kàddu nga ciy dolli ak looy tàggoo rek ñu tàggoo ñaan ba beneen yoon. waaw avant maa ngi gërëm Fallou Ndiaye bu baax. Fallou suma rakk la. nekk promoteur bu baax di gërëm Assane Ndiaye. di gërëm sëñ Modou Niang. di gërëm Aziz Ndiaye di gërëm Baye Ndiaye. di gërëm na Gaston Mbengue te nag lii ngeen ma wax ah. yéen lii ngeen di xeex ah. man mii maa leen ko war a xeexal moom da nee dugg ci làmb Gaston sunu maam yi ñu ngi daba daje ci tabaski faa mbuuj ca waalo damay wax ni soo ko wooyee ci cent franc mu wuyu la Gaston hmm. nit du ko gën xol Gaston nit du ko gën a baax te yéen lii maa ngi wax du jànjeekoo na dajale chute yëpp yóbbu leen ci ministère des sports te dana ko def du jànjeekoo chute yi na leen jël yóbbu leen ci ministère des sports ndax sport bi Macky sàll Matar ba la ko dénk te Matar ba bëggul dara lu ñaaw lamb ji bu di contact sud yi dara du dox lamb ji bu di contact télévision yi dara du dox mais bu ñu mënee gis wala ñu man moo dégg sud yi la. ndax télévision yi dañuy xool ñu ñuy invité ak ñun duñu invité dañuy xool ñu ñuy laaj ak ñun duñu laaj yéen a tax kenn yabatul yéen sud internet yi yéen a tax mbir yi siiw mais yéen ku leen génn ci làmb lan mooy xew loolu de nga ne Gaston moo ko wax. waaw du ma nangu ni Gaston ko wax. moo ko wax de barki démb rek waxaat na ko wal fajiri dama ni si kàttanu yàlla Aziz Ndiaye suma rakk la jarbaatu Gaston la man Gaston nekk suma mbokk lii leen metti Aziz yaa ngi may dégg na nga fexe woo sud yi sponsorisé leen na kat sa produit bii mu siiw nga bëgg waxoon naa ni sa diwlin gi dem na ba Chine man ñu yóbbu nga ma may dem ba makk di fa tudde j'adore kon nag maa ngi lay wax ni nga dimbali ñii nga xam ne ay ndaw lañu site internet yi de bu fekkee ni borom réew mi dafa wax ne ndaw yi la bëgg kenn ku nekk am ci loo jàpp président Macky Sall na nga gestu sud yi dénk leen Matar Ba Matar Ba dem waxtaan ak borom siit yi ñu xam lan mooy seen métit Matar Ba dana ko faj te lépp maa ngi ko teg ci loxol du jànjeekoo mën a defara tax ñu jiital la ci làmb ji. man yaakaar naa ni bi ma gëjee sa kër ak léegi ëpp na di ans mais Serigne Babacar da doon wax ni àndu xol moo am solo du jànjee ko àndu xol laa ànd ak moom ànd ak moom ngir intérêt wuti ma ci moom dara mais jukkoo ma ma doy ma topp ci gannaawam kon nag site internet yii maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen sutura kontaan nañu ci yéen ndax ñun kenn xamuñu woon yéen a tax ñu xam na mais Wassare nag moom laay takkal tey médaille numéro un. ñu may def deux ak trois après laa koy def mais wasaare làmb tey moom laay jox médaille numéro un. gàcc ngaalaama yéen ñi fi ñëw gàcc ngaalaama maa ngi ñaan ci doole Maodo. Mm-hmm. ci doole Serigne ki suma Serigne. yéen ñëpp balaa déwén yàlla na ngeen yokku. amiin neen ñi leen yàlla na nu yokk géejooy gii ma nekk yàlla na nu yokk réew mi yàlla na fi yàlla def jàmm. maa ngi gërëm képp ku ko seetaan ma wax ci wax joo xam ne tegginuwul nag ma ko jéggal ndax wax dafa metti te lu mu mën a dagg bu leen ma daggal jégalu bii may jégalu Sénégalais yi maa ngi jégalu Sénégalais yëpp di jégalu sama njaboot di jégalu waa Guédiawaye xam ne wax dafa metti yàlla mi am jàmm yàlla na leen yàlla defal jàmm mais baabu mii ma teral yàlla na ko yàlla suturaal site bi yàlla na soppi ko doon télévision yeneen site yi fii ñëw yàlla na ñu soppi ko doon télévision ñi bëgg ñëw te ñëwunu maa ngi leen di gërëm maa ngi gërëm amateuru làmb yëpp gërëm waa Guédiawaye di gërëm waa di gërëm Alaaji Malick Gakou di gërëm ay dara di gërëm Baye Ndiaye di gërëm Aziz Ndiaye Massata di gërëm doomu Géejawaay yëpp di wax ni wax dafa metti maa ngi jégalu ci kàddu yi di leen sant te di leen gërëm di gërëm Père Birahim Ndiaye mënuma la fay mënuma la fay Père Birahim yàlla na nga yàgg suñu kanam ci doole Maodo jërëjëf ngeen jërëjëf mbokku internet yi kon jataay bi ni ngeen ko gisee rek euh, loolu moo fi xewoon waa wasaare ñëw doon teral si Euh, feddali seen kóllëre ak Père Diaw mi nga xam ne yàgg na ci làmb def ci lu ne ba mu ci nekkee ba léegi lu rafet rek la ciy wax ñi ngi ñaan nag euh, sit internet bii def lii yàlla na ko suñ borom yokk yokk yeneen site yi fi ñëw yëpp ndax wax dëgg yàlla dañ ciy kontaan ndax buñ ko defoon niñ ci amee mbégte ñoom nii ñu ko defee noonu lañ ci amee mbégte ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di wax ne àddina nit ki bala moo génn àddina danga koy teral rendre ko hommage moo ëpp solo jërëjëf kontaan nañ bu baax li ma ciy teg daal mooy. maa ngi gërëm ñi moom chute yëpp. waaw bu ma xamoon seen tur lim leen. mais Thialis mënuma ko bañ a gërëm. Mhm. ndax doomu géejawaay la. Mhm. nekk jàmbaar nekk ci aw yoon. Mhm. dara paasewul ci moom. Fallou Ndiaye mii dara taxul ñu naw ko lu dul ay teraangaam mënoon na ko jël yóbbu ko bawal. mais bëgg jàppale ndaw yi. maa ngi gërëm Boise. mboolem tur yi ngeen ma wax rek. Buzz Lutte TV. Lutte TV maa ngi koy gërëm. lépp nag moom. Mhm. site la boo xam ne ñëpp bàyyi nañ ko xel. buur géwél buur géwél. buur géwél it moom sama frère la. maa ngi koy ñaanal mu yokk mhm. à vrai daal. Mhm. boo gisee ma yox ci calis calis maa ngi moom conseil moo ni boole woon mook jaw mu am ngor gu toll ni bi mu jàppee jaw ba léegi bàyyiwu ko làmb ji nag day neex di naqadi ñu ngi koy wax mu gën a taxaw rek te boo liggéey mu xam ñi muy àndal pour mën a progresser ci làmb ndax am na ñoo xam ne ku ànd ak ñoom ñu tayle la ci àll bi calis nag neexut a tayle am na ñu ko bëggoon tayle mais maag Père Birahim duñ ko seetaan nanu talal loxo ñu téye ko wan ko yoon wi ñooñu ñuy jiital ci làmb ji mu fekk. bàyyi bàyyi ba ci kanam doo leeral lool dama ni li may leeral mooy Père Birahim Ndiaye un jaw fii ci biir Géejawaay mu bàyyi ma fi dem di jéggaani leneen waaye waa waajooju mu jiital bu doon bu doon bu doon école maa koy jàngal maay professeur am du ma tudd turam man ne bay ci say oom calis di ñëw ànd ak ñu liggéey bañ koo nax ndax ñun ay garmi lañu xasuñu kenn nag wax ji bu ñagasee bu ñu ko jëlee leneen yàlla na yàlla def jàmm jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi kontaan nañu jërë ngeen jëf. maaleykum yéen doon ma ci laajee ci jaww dama ciy sawar jaw faraan ma jaw xoor laa tër jaw ma jaw xoor fara jaw buuli mboj bakkar bi ci waalo. fa tubaarkàlla macha allah nii nin ko bettee nii ak a mën a ne luy defar géejawaay rek ko tax a jug barke yonent bi bëggul doomu aadama mer bëggul doomu aadama xiif bëggul doomu aadama def dara yaatu na tabe na alalam du ko boole kenn dina la jox nga lekk bu suur jox la nga naan mu yëkkati ñetti yoon la ataaya barke yonent bu tey te damaa woo dama fenel kenn moo di ko def lu baaxam ni nag yàgg na ci moom. diggante man Aziz Ndiaye nag ma laa mën Fatim Bakary tubaarkàlla macha allah seen diggante ñun ñaar yàllaa ko defar te borom jumaa ji rek la saf mu defee ko nii zadooram bi ak a neex ak a set ak a siwlis ak a sell mbaxalaloo ba puuj paaj bi mel ni jàmm ràcc bërëngu barke yonent bi lii comme guerre yàlla na jàmm yàgg. waaw Père Diaw euh, décoration bi nag ñun li ñu ci gën a neex mooy diwlin bii ñu la indil ndax lii huile j'adore la. te dañoo gis ne borom Jador di Aziz Ndiaye euh, géejawaay la dëkk lépp lu mu am aussi géejawaay la ñu dégg ay teraanga yi mu fiy def dégg li mu fiy def ab taxaw bi nga xam ne taxaw na ko fi euh, xamuñu nag dara sa diggante ak moom waaye danoo njort na rek comme que géejawaay la dëkk nga dëgg géejawaay bu ñuy jënd ay produits. dinañ jënd Zador indil la ko te mboolem liñ fi indi bu fekkoon ne ay produits yu Zador am la duñ jënd fenn lépp Zador lañ koy jënd indil eh, indil la ko fi xamuñu nag sa digganteeg Aziz Ndiaye mais lii daal moom moo nekkoon li nga xam ne nii jàppoon nañu ne war nañu koo def ci ñaari doomi Géejawaay. dama lay wax rek ne la baabu. waaw. maanaam. baabu damay gërëm baabu ndax li juri njaag mooy njaag. Basir. Maodo laa léegi giñal bu ngeen téye woon lépp te indil ma ñetti bu leen bu teelu Zador ngeen mën di Zador lépp gi na le mais dama lay wax ne ne diwlin ji moo ma bi borom diwlin ji moom laa am boo ma tuddee turam bu ma meroon sax damay giif baabu xam nga ku la dul jàppale waaye Aziz bokku ci yow da nga Aziz dañ la sponsorisé. Aziz di nga dem këram laaj ko ci loo ko bëgg laaj mu tontu la di nga dem kër Balla Gaye laaj ko loo ko bëgg a laaj mu tontu la di nga dem kër Gaston Mbengue loo ko bëgg laaj mu tontu la loolu mën maa ci jël sumay engagement te di la wax ni diwlin bii lépp lu ci jële delloo si na ko ci réew mi bu gàmmu Tiwaawan jotee lan mooy xew bu màggalu Tuubaa jotee lan mooy xew borom diwlin ji xamul lu may ñaan yàlla yàlla guddal fanam. wéral ko bàyyi ko suñu kanam ba mu màggat kii deseelu ma dara kii moo tax kenn yabu ma sama ji dama la ni ay 40 tonnes ceeb lay indi boo demee seen kër ñu ngi séddale ceeb bi man daaw une tonne ceeb la ma jox barke démb mu indil ma une tonne ceeb ma ni yow daal ndem yaa bëgga a may magu borom Zador. yow sax léegi Basir Jador laa lay wooye bu Jador bay bay. ban ci am ak tur la. waaw man la Souleymane Fall. man yàgg ko jege. mu nekk suñu idole. ñu bokkoon benn métier bu mu doon dawal car rapide. mu yàgg lool. boobu lañ ko gisoon sopp ko am am cofeel bu nekk suma diggante ak moom. loolu mooy wéy ba nëgën si mu nekk suñu conseil à chaque fois. saa bu ñu jaaxlee bu ñëwee suñu moom rek suñu problème day réglé wu si côté bu nekk nag waaw mu féete ñu côté bu nekk de gauche à droite di ñu xelal si wàllu métier mi ñu si avancé macha allah oto bi ma njëkk am bi ma ko jënd man ak moom ñoo ànd deuxième oto bi tamit la même chose muy taxi bi lépp si jëmmam ji ak kàddoom gu rafet si moom laa xamee oto bi ma mujj am si tabaski oto bi taxi bi ma mujj am si tabaski bi moteur bi tegu si nii si jëmmam lan ma ko joxee c'est gratuit. ci jëmmam lan ma ko joxee si gratuite post Thiaroye si tabaski bii ñu génn moteur muy defagul un an lépp bëggul comme li comme li femme bi wax léegi rek lan lay dëggal bëggul ku sonn à chaque fois si ay jëmm nit lay dox si Aziz moom day xëy di si dox si ay jëmm nit soo ba ngoon si Balla Gaye la même chose si Malick Gakou la même chose si ay jëmm nit lay xëy di dox suba ba ngoon ñun ñëpp saa bu ñu xëyee damaa liggéey ba wàcc borom kër laa kilifa laa mais dama bàyyi suma kër maa ngi ni fii laay nekk ba ndogu ba pare wala may waaj ndogu si li si laay ñu koy ñaanal yàlla yàlla bàyyi ko suñu kanam mu yàgg ñoo tetee yàgg ñoo féete de gauche à droite may ko fan bu gudd ak wér gu bare bare bare bare bare yokk wërsëgam parce que xam naa ne bu yokkoo ñun dinañ yokk sama jabar yar leen ñu bëgg ma trop ñu ñëw sama teraanga ji bëggoon naa kër gi ñëpp a fees fi del di fait chute dafa bare ñu jéggal ma ko ñoom ñëpp dañu bëggoon a wax kon nag maam mi nga xam ni maay nijaayam di léppam moo tax mu ne rek dafa ci bëgg sànni ñaari kàddu ba ci kanam. gannaaw maam di ci sànni kàddu dafa benn bu am solo nee na jaww dafa mën a joxe ñam jaww dafa tabe bu la joxee nga lekk wala nga xewlu ba pare day laal lu tax la dana naan ataaya doomu ba loolu mën a joxe ñam boobu foo ko jël. xam nga jiili mbay Louga la dëkk. mais Alaaji Ablaye Diaw bi ma jur nga xam ne yaayam daf ko naan wax laay bàdd jéeri borom waalo ñun ñoo waalo man joxe ñam rek laa war a def dogu naa ci Serigne Babacar bu doon sama sago may dundal bindee fii man na nit ñi lekk na nit ñi naan bu kenn am problème man bu doon sama sago problème ci man rek lay dal wax dëgg yàlla bu ma toogee te nit ñi wéruñu bool bi te boo yoroon sa micro territoire di laaj. dañ lay wax ne lu mu am jox na ko nit ñi waaye nag yàlla bàyyiwuma maa ngi ñaan loolu yàlla na ma yàlla yombalal lu ma jox sama njaboot ak njabootu jullit ñi maa ngi doon ñaan yàlla sax bind bay tabaxi kër di jox ñu di ci dëkk bañ a fay lu yaas ndax ci man rek la war a ci kanam. waaw man lay euh, la wax man Moussa laa tudd. mais euh, ngi ma am na ñoo xam dañ naan Moussa 10 ma xam ci terminus ba. loolu nag li ko waral mooy oto bi ma yor numéro bi dañ may waxe noonu te otoom la xam ko ci baax ak yaatu moom nag moo ma yar ca ba may lang maanaam dañoo yàgg mu di ma taxawu ci côté bu ne am na si ñoo xam ne sax dañ may tooñ naan ma kii sa baay la mais tamit dama koy accepté ndax mat na ma ko ndax heure bu sama bët xonqee rek man moom laay gis ah, borom xol bu yaatu ku mun a dimbale doomu aadama comme ni ko femme bi waxee bu heure añ jotee léeg lay sax day jékki-jékki naan te ngeen a génn ci mbedd mi xool ba xam am na ko añ wala ko añut loolu borom xol bu yaatu rek a ko mën ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ak euh, daraja daal yu gën a yokk yàlla gën ñoo yàgg ak euh, bàyyi moom daal ñu gën a yàgg ak si daraja yonente bi jërëjëf merci beaucoup